na ne yow mi yaay ci la gën a metti ci yow ak li nga xam ne euh, tegu na ci sa kaw doom waaye nag jàppal ne xeex boobu wala méttit woowu du wéetuloo ci nde loolu moo tax bi ñu ñëwee Ziguinchor ñu ne faw ñu ñëw ci yow masawu la waaye tamit profito ci tàllal la suñuy loxo ngir nga ñaanal ñu ngir ñu mucc ci loxo saay-saay yi ñu jàkkaarloo waaye it di sàkku ci yow nga ñaanal réew mi nde mucc moom ñun ñëpp soxla nañu ko ndax fi mu nekk nii ku ne xam na ñi ñu am leel donc ñu ngi dellu di ñaan bu baax a baax a baax xam nañu fa nga bokk euh, te xam nañu boo ko ñaanee suñu borom dina ko nangu kon ñu ngi lay tàllal suñu loxo ngir nga ñaanal ñu ñu mucc ci pexey noon yi waaye nga ñaanal réew mi aussi mu gën a am dal gën a am jàmm tànk tànk yi daal tànku doom la tànku sët la euh, moo tax ñu ne sañu sañunoo ñëw Ziguinchor ba génn ko te ñëw ñu tàllal la suñuy loxo voilà jërëjëf Ngom jërëjëf jërëjëf Ngom jërëjëf Ngom jërëjëf kontaan naa si tam wax dëgg yàlla ngay man soo egsiwul woon ba fii sax te chaque fois ma lay gis ndax damay suivre eh, actualité bi ma lay gis eh, toujours yaa ngi ci wetu Ousmane toujours Ousmane a ngi sawet ngeen àndandoo mhm. wax dëgg yàlla di nekk ay ñaari xale mhm, mhm. am lu ngeen bëgg ci seen réew waaw bokk ci xalaat ah du ma def loolu di ci bëgg bëgg naa ci trop di ñaan nag fu ma toll may ñaan yàlla lafaleen seytaane parce que seytaane rek moo jara daw mhm. Mhm. loo gis lu nekk seytaane moo ko yàq waaw moo tax foo jullee wala foo manti nekk rek ñaan yàlla lafal leen seytaane te yàlla musal leen nag yàlla yiir leen bu baax waaw leen fa yàgg yàq yeggul yiir leen bu baax a baax a baax a baax yiir leen bu baax ñu ci seen kanam yiir leen bu baax ci li ci seen ginnaaw ci seen càmmeñ li ci seen nijaar ah, waaw yal na leen yiir yàq leen làq leen nag wax fa yàlla fa fa yàq yeggul naa trop jërëjëf kontaan naa si ñëw bi sant bu baax defal ñu ñaan jërëjëf seen tànk yi nekk tànk yi